بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي نيجي في تيجي دك بوتدي بي تي توبا تي تواي الشيخ محمود منتخا ابن الشيخ محمود البشير خليفة جنرال دي مريد اك تي سرين الشيخ بسير مباك ابن سرين عبد الخادر اك سرين الازي مباك يفاي دي جوريني سرين بيتي ندكارو ngir kaddu leral yo xamanteni fas na ko yene jotali mu jëm ci mbokk julit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 xelam dem ci ne war naa def jihaad waaye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dox diggam ak loolu ida sakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa thubuta taarat ila al jihaadi bil armahi nafsi walakin zabba an il maahi kon nag jàkka ji nañ xam ne la sëriñ bi waxoon sëriñ bay saar ci jumaay Tuubaa ja ne ko danaa bàkk sama bàkk dafa jotugut sama dëkk ba ci Tuubaa ak sa sama jumaa ja ma fay taxawal mooy sama bàkk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 ci kàttanu yàlla ak ci baaxu Serigne Touba suñ borom def mu sotti ci loo xam boor ko bi mottali yéene moom mottali waale yéene ña ko jëkk Serigne yu fay mii nga xam ne nag yàlla def na mooy jëwriñu sëriñ bi ca Ndakaaru doon nañ jëwriñu liggéey bi nekk fa ca ba liggéey bi tàmbalee ba ni liggéey bi àggee kon lépp Serigne bi tegaatoon ko ci loxoom ñu ànd ko kon moom lay jox kàddu gi moom mu leeral.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 dëppook tamit ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru muharram di wéru wolof ñu am ci nak programme yu yaato yaatu yo xamne ci ndigalu serigne bi mu santor ñu ñu def ci ay liggéey ak i gëstu liggéey ak gëstu yépp nak teunk nañ ko def ko nañ ko ci programme bo xamne bi bii dinañ ko tassaré manam ci ay këyit dinañ ko wax tamit ci radio yi ak ci télévision yi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 yalna yalla yok ay ngëneel ak leer ca mom nga xamni le liguey bi mi ngi tàmbale won ca mom niko Cheikh Mouhamadul Bachir waxe te mu ñëwoon yebal ko fa mu teg si xeer wi muy bëss bobu dañ ko ko jagalé nga xamni day am ay conférence Yo xamni def nañu tam yi dinañ leen ko garal ci programme yi ci suba gi ba euh, euh, waxtu xewlu jot ñu dellu ci après-midi bi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 ki nga xamni li mo andon ak serigne bi tegon xeer wi muy cheikh Mouhamadou Lamine bar Fallilu mom lañuy jagle busba. ba nonu lañ koy jappot ci suba ci ay waxtaan yo xamni ay euh, ay kat yu mag ay ñu bari xam-xam nga xamni ñom amna ay tem ak waxtaan yoo xam it ñokoy waxtaan ñi ngi bitim rew ñi ngi tamit ci bir rew mi waxtaan yoyu nak li ci ëpp dinañ ko def ci arab dinañ ko def ci français dinañ ko def ci anglais dinañ ko def tamit ci wolof bu ko xeyé def ko ci suba gi ba ci ngon gi guddi gi nima len ko waxee day dal di nek li wax rek veillée religieuse manam dañ ci jang khassida ba heure bo xamé ni bi dé rek euh, war nañu war nañu noppulu ñu noppulu muy bësub bo bobu ñu cheikh mohamad lamin bar fallilu bësub al khamis bayit nee na ñu ko seigne sidil makhtar mbakke mi nga xamni ni la wootu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 ak sante talibé yi ak woné liggéey bi tamit li fi fi mu tambalé ba fi mu exi loolu nak dinañ ci ñëw ci ay communication yo xamni dinañ ko wax ci radio bi wax ko ci télé ci télé bi ci ndigalu sëriñ bi ak Cheikh Mouhamadul Bachir bu ñu ba ci aljuma ja aljuma ja lenn rek mo fa am muy li nga xamni li moy julli ji ak dalal gan yi nga xamni dañ leen di galal dalal ñu dugg ci kay bi bu waxtu julli jotee ñu julli loolu moy moy li nga xamne li moy programme bi bu juma ba nupi nak sëriñ bi dina tejj waxtaan wi eh, na nga xamé ni bi bu féké ni bi amna lo loo li moy ay yu muy ak message mom dina ko waxal bopam kon c'est li mo doon mbiru programme bi dinañ ko gëna yaatal ci télévision yi ndaxte am na ay plateau yu ñuy def ak ci radio yi ak ci télévision yi ba nga xamni ni mu tëddee lépp dinañ ko garal ba talibé yeeg mbokk julit yépp mëna xam naka lañuy taxawé ci bëss ba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 foofee nu gën fa yeesa suñu jaayante eh, fas yéene ko taxawal ci liggéey bi eh, eh, suñu kem kattan lu nu mën ñu def ko ci taxawal sàmmal ko liggéeyam bi lu nu mënut nu jéem ko ba tële alhamdulilah rabbil alamin Cheikh Bass ak sëñ Mouhamadou Mbacké li ma tax wax nañ ko xanaa li ma ci gën a dolli rek ñu xam ne woon nañ ñëpp bokk jur di yëpp